talaata ji ci suba la ñu ko déféré brigade territoriale bu Kaolack ñu koy toppee tentative de meurtre détention illégale d'armes Dof Ndeye dana fanaan guddeem gu njëkk ca kaso boobee nekk ca Kaolack bu ñu sukkandikoo ci information yu Seneweb chef bu parquet daal di criminaliser li nga xam ne moom mooy dossier bi de ordonné ñu ubbi ab information judiciaire laata muy sollicité mandat de dépôt euh, ci réquisitoire introductif rappeur bi dëkk ci Grand Yoff ñu inculpé ko yóbbu ko ca kaso ba di fàttali ne Dof Ndeye nag dafa doon rek joxoñ baaraamu tuuma waa ji di bee fay ne dafa vandaliser li nga xam ne mooy otoom ginnaaw ba mu jógee ci ab concert foofee ca Ndofane vidéo yi ñu gis mu daal di viral lool ñu gis ko mu téye ab paaka nag di am sax koo xam ne daf ko doon dàq ba mu ke mu ne daal dina koy jàmmatee ba mu nekk ca coma moom nag bàyyul benn yoon ndax bu noppee dafa daal di dem ci kër docteur ba ñu ko xoolee itam defal ko ab certificat médical boo xam ne dana toog lu toll ci fanweeri fan te mënut a liggéey moom nag mu daal di porter plainte ci brigade la muy def ba noppi dafa daal di fay téléphone am daw ñi ci takk der yi daal di koy jàpp le 24 juin bi 4h30 jotee lañ ko daal di fekk ji foofee ca Ngexoor yóbbu ko ca kanamu procureur ba mu daal di koy placé sous mandat de dépôt ubbi ab information judiciaire kon mën nañoo jàpp ne Dof Ndeye tey kasoom gu njëkk dana ko fanaan foofee ca Kaolack